toogee. Eh, mais dina farataal saa su ne ab diir. nee na moo xam Touba lu nekk. nee mu doxantu ba foofu. nee na ñëw ak yow. nee na am mbégte ànd yow ànd ak délégation mu ànd ak jóge Dakar ba ci yow. ak ñi nga xam ne ñoo ko toogal fii ci dëkk bu sell bii di Touba suñu Cheikh Thioro yi nee ñëw siyaar bi ci biir sëñ bii nga xam ne mooy sa bisu maam ci màggal di wax ni rek la dénke woon boppam bi mu ñëwee ca tool ya nee na loolu lay fekk tey jii bi nga fekkee ci keppal sëñ Saliou gii nee ci sa njaboot la bokk te nee gis na cofeel bi ngeen am ci moom nee di ko nemmeeku saa su ne nee di xool wér gi yaramam nee na gis na tamit sa njaboot yi bokk ci yow nee cofeel gi am ci moom nee na moo tax muy feddali ak taalibeem di la dénkaat boppam nee di sàkku ñaan tamit saa su nekk sa jëmu ji tat jii nee di ñaan yàlla suñu boroom mu defal la wér gu yaram nee na bàyyi leen sunu kanam mu yàgg-yàgg mbàkke barke sëñ Saliou di ñaan yàlla nag ci màggal gi nga xam ne moom la ñuy dugg si nee na mu doon màggal yi gën ci màggal yi nee te saa suñ jógee ci màggal gii nee mu yóbbaale mbas mi ñuy wax ci réew mi ndax nee na gis nañ ni nee na bi ñuy dëgmal màggal gi nee na coow li bari woon na lool bàkk nee waaye waaye yàlla suñ borom de def na li ñu doon ragal ci mbas mi lépp nee na wàññeeku na bu baax mbàkke bal ba mel ni sax dafa mel ni mbas mi sax déggatuñ ko fenn mbàkk ba nee bu dee am na lu tuuti li ci des nee na yàlla na ko màggal bi yóbbaale ci bàkki sëñ Tuubaa sama nee na loolu rek la waroon a wax ci lu gàtt di la ko siyaare mbàkke nee la ca des nee su dellu see ci beneen jamono bu gën a yaatu lii nee nañ ko defee woon rek ban la fekkee ca tool ya nee na mën a wéete yow waxtaan yow saafante yow ndax nee na waajuram nga léppam nga sëriñam nee na jërëjëf Mbacke Balla sëñ bi de nee na mu la waroon a tontu nee na waxaale nga ko sa biir wax waaw. nee li muy fekk li mooy cërub doom ci yow. nee na loolu li muy fekk li mooy cërub doom. moom la ci moom la la dencal ci biiru xolam. nee ginnaaw ba nga jógee bustaan tamit nee ginnaaw bi nga jógee bustaan itam nee ginnaaw bi nga jógee bustaan dafa jàppoon fu dem ci daara yi fu yaatu yëgal waaye nee na loolu it mi ngi ko jàpp ba tey nee na bu ñu suñ borom weesulee màggal jeeg jàmm fu mu fi nekk la ko waxkat yi nga xam ne ku ne bëgg nga faa sedd masla nee na kon na la koo lebal nga fay si ko nee na ñu maase ñun te ku nekk fasal sa morom bismillah الثبات الذي في كل سير وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة